kii damay maslaa nii ak ñoom mais bis buñ daggee cordon bi nag la maslaa di jeex d'accord ci laa seeni liberté fii la yem samay liberté foofu la commencé te dama koy jël ba mat sëkk sëkk bis bi moo ko jéggee boobaa justice amanteeg man affaire mais nag loxo yi ci nekk nii moom moo ma xaw a tiital comme nee nañ le 28 dinañ ko réformer hmm. maa ngi xaar gaaw ñu réformer ko hmm. juge juge yi moom seen procureur moom boppam ma doog a a gundaandaat nag ci li nga wax noonu kii di Azoura Fall ak Maïmouna Bousso dañoo nammeeku seen sortie bi ñu def daal di menacer toute personne qui va à l'encontre de Ousmane Sonko wala qui tient des propos déplacés envers Ousmane Sonko foofu foo munti nekk ñoom dañoo pare pour def justice seen justice su bopp maanaam dal sa kaw jëm fekk la fi nga toog daal di dal sa kaw vidéo Azoura Fall ak Maïmouna Bousso bu baaxee ngeen jox ñu li démb def naa benn sortie sortie alerte am naa information que ne Bah Diakhaté jàpp nañu benn gun pare gun de seen mbir yéen maa koy lijjanti keneen du ko lijjanti yéen seen mbir maa koy lijjanti man maa koy lijjanti ndax lu ëpp tuur dee leen wax rek dee leen saaga yéen ñi nekk Europe di saaga tamit am na ñoo xam ne ñu ngi Europe di saaga yéen jàmm du nga am ne wax naa leen ko juga ay ne ci commentaire yi di wax wala ngay ne vidéo di wax dafay jeex barke alxuraanu karim lu leer laa lay wax nii billaahi day jeex saaga nday yeeg xase bi moom day fini day jeex day jeex tak waa koy information la la jox rek ba rek japp nañ ko legui léegi ne sera plus cher nak man déjà averti gis nga ki ñu toll j'appelle tous les patriotes yi nek Sénégal ngeen taxaw ngeen pare parce que dafa am lo xamni ñokoy régler suñu bop boppam ah. yeen patriotes yépp la wax nak préparer len tay le lundi mardi mercredi taxaw len ku fi yëkkatiwaat kaddu saga fi ay nit ñu dajale suñu toole biñu am duñu manifester ci mbedd mi sa kër lañ lay fekk on n'acceptera plus de se faire insulter dans ce pays-là réglons les problèmes nous-mêmes soit la justice da koy régler beaucoup de justice régler wu ñu régler ko suñu bop et puis un point c'est moom nag daal di ne saaga yi dafay daal di dàkk ndax nag pare na pour képp ku saaga rek ñoom ñu dal sa kaw balaa ñoo ñëw ci vidéo may mun a bi waaw moom na day dal ci kaw boppam mm. parce que moom moo fi saaga ba Diomaye Faye nday moom dafa waxoon day ñëw sama kër sax ba ba léegi maa ngi koy xaar te des fois ma envoyé ko message whatsapp du tontu. Mm. moo ma doon wër nag waaye bu mooy tuut man maa ko nar a wëri. da nga message du tontu. waaw dama koy message du tontu. day lire sama STT damay lire ay STT hmm. te moom moo ma doon wër taxawal fajiri déclarer publiquement né daf may wër ma ñew feñu naa ko ba son nak bu moy tout man ma jël sama responsable bop dem wëri ko déet nga mu wër man sama slogan moy fu jàmm yéenewul bu mu ko fanaan dañuy mëna bëgg jamm ñu and ak ñom ci jàmm bëgguñu jamm lu leen neex def ci bu leen neexé ñu dem signé pacte légui ñu nak ñom justice ñu ëffal nañ ko daan temps boy ëffal né lu way mënal nak moromam na ko def ci lay xamné ñun ay boy mbàkke lañu téye drapeau di yappar yappari ci ginnaaw nit loolu taxu ñoo jóg ñun suñu réew la ñuy xeexal te moom man Azoura Fall sax lu muy liggéey may mun a sax xam nañ ancien man kenn la man ak jigéen man yenn yi du ma wax ci moom mais Azoura moom lan lay liggéey luy liggéeyam sa xarit la xanaa nga non damaa xamul liggéeyam te question bu bëgg naa euh, suñu internet yi ñu lijjantil ma moom lan mooy liggéeyam ñu hmm, wax ko ci bu dee garder Sonko mooy liggéeyam wala sinabal Sonko wala topp ci ginnaaw Sonko te diggante Azoura Fall ak dama ci amum tiit lool Hmm. fu fu fu fas dul dem nag xel a fay doxantu waaw fu fas dul dem xel a fay doxantu digg xel a fay doxantu diggante Azoura Fall ak Sonko sama xel xel baaxul daal yàlla na xel de hmm. waaw foofu rek laa yem junj doy na borom xel te fu fas dul dem xel moo fay doxantu seen diggante ila laay faal. ay complice ay xarit lañ de. ah gisoo ko nii man de xaw de gisoo nii ci ginnaaw. seen diggante macha allah seen diggante. ci ginnaaw ko sell ah, ki fu fas dul dem daal xel a fay doxantu sénégalais yi nag ñoo yor seen xel di xalaat mais seen diggante daal. xaritoo rek du dara. ci la laay faal daal. noo jàngatee <laughs> Azoura Fall menaces yi mu def kon nañu xoolaat la ñuy wax nee na képp ku wax danañ la fekk fa nga <laughs> fa nga nekk. n'est-ce ma wax aayul. aayul.